Ah, ça, ça, ça dire normalement c'est, vrai que Pa Assane a, a bien fait de le dire de le souligner cest dire que décision bu day noonu mhm. bu toll noonu mënoo ko jël sans réfléchir mhm. bien sûr dire euh, à l'époque bi Mauritanie xam nga Mauritanie bokkoon na CEDEAO mhm. dafa jëkki génn dem wuute ay monem et tout ça ñii tamit boo moytuwul euh, bu ñu génnee rek nañu xalaat ne dañuy génn si franc CFA bi teg seen propre monnaie. Mhm. wut seen propre marché également euh, voilà donc wut seen propre marché voilà euh, nu mu sax xam nga CEDEAO c'est quinze pays. oui quinze pays donc ñii bu si génnee. Euh, ñan ñoo fay des. douze moo fa des. moo fay def mooy Bénin Burkina Cap-Vert Côte d'Ivoire Gambie Ghana Guinée euh, Guinée-Bissau Libéria Mali bon Mali day génne euh, Nigéria Sénégal ak Sierra Leone ak Togo. Mm-hmm. ñoo ñoo fay des. Mm-hmm. ñooñu nag te bul moytu boo boo moytuwul. comme affaire militaire la boo moytul peut-être d'ici euh, je sais pas euh, dans trois ou quatre mois ils peuvent même essayer d'influencer le Guinéen là mmh. Mamadou Doumbouya nekk ñëwal fekk si ñu parce que affaire de hmm. militaire la ñoo bokk les mêmes convictions mais su si Guinée duggee moom Sénégal dina cóolle de waaw <laughs> bon mais Sénégal moom bul xalaat ñu génn Sénégal moom <laughs> ñoom Sénégal mooy doon Guinée su duggee ci kuréel gële ñun Sénégal dinañ cóolle ah oui oui mais il faut pas éviter il faut pas il faut pas euh, le fait que Guinée mën a euh, rejoindre ces ces ces mhm, trois mhm. parce que bon ñoo bokk conviction comme ni ma la ko waxee rek c' est des c' est des c' est des militaires c' est te raison yu ñu avancé ñoom maanaam raison yi nga xam ne moom la Mali Burkina euh, Burkina ak Niger avancé mooy lan fu ñu ko gën a teg mooy dañu ne euh, lu tax ñu créer seen association des états du Sahel bi c' que. les autres pays de la CEDEAO jàppale ñu leen si affaire xeexu terrorisme. dañ leen a bàyyi ñoom pays boo gisee fii en Afrique de de l'Ouest à part euh, le Nigéria bi nga xam ne muy ngi euh, xeex ak bokk araam depuis longtemps mais ces trois pays là moo ñoo gën a sonn si affaire terrorisme. Mhm. te ñoom le fait nag yeneen réew yi nga xam ne ñoo ñoom la bokkal CEDEAO ils ne se pas tellement impliqués moo tax ne dañuy fippu deuxièmement ñu ne euh, dafa mel ni CEDEAO les dirigeants de la CEDEAO. il respecte plus les ordres yi nga xam ne dañuy jógee bitim réew maanaam les puissances étrangères ñoo leen di jox ay ndigal ñu koy def loolu bokk na si deuxième euh, raison bi nga xam ne moo tax ñu ne dañuy génn donc yooyu yëpp nag boo gisee encore une fois ça va réveiller un peu ça va faire réfléchir les autres dirigeants de la CEDEAO maanaam les douze pays nga xam ne ñoo sa des nañu toogaat waxtaan pour éviter que tamit mu am yeneen état yoo xam ne dañ leen di convaincre pour ñu dem rejoindre les les les l'alliance des états du Sahel ce qui serait dommage pour la CEDEAO parce que en tout cas encore une fois sur le plan économique CEDEAO am na njëriñ parce que day permettre li mu la wax nii rek mhm. nit ñi di mën a dem di dikk sans am problème même si on sait que parfois euh, CEDEAO taxul nga ne doo am problème de circulation parce que tey boo jëlee sa camion ngay dem Mali eh, y a les tracasseries euh, douanières et frontalières un peu partout dans le en Afrique de l'Ouest bon mais ça c'est c'est c'est quand même minime par rapport ak loo xam ne mën na ko jur une fois que ñu ne ñooñu bokkatuñu dañuy wut dañuy dem ber seen seen daara mais Awa. Uh-huh. y a une chose ci ci ci sur la pertinence de Georges bu ma bëgg a yokk. waaw moo di ne Awa la CEDEAO. Mm-hmm. c'est au moins quatre cent millions d'habitants yu manqué. c'est un marché léegi ce marché-là est contrôlé par qui la France au nom de quoi un un un Macron quand il parle il parle de giron maanaam notre espace quoi genre ouais. la région de l'Afrique de l'Ouest genre dat no suñu business la quoi mhm. gis mm nga -hmm. cette histoire-là il faut tey jii sur le plan économique CEDEAO bu doxoon ni mu war a doxee ca la ko taxoon jóg dëgg mhm. objectivement mais du ñu am jafe-jafe imagine toi trois cent cinquante à quatre cent millions d'habitants loo xam ni mat na daanaka n fois la France ak ak ak ak yeneen ak ak daanaka genn Europe ci boppam. Mhm. mais loolu bu si africain amul xalaat mooy xam-xamam des na. et pourtant je sais que on a les bonnes gens les bonnes personnes yi nga xam ni mën na nu si dimbali mais lan la France di def. day fexe toujours bu amee benn Georges Nesta bu jóg bëgg a doon candidat pour ut solution wala am idée yu baax yu mel noonu mu ne kii problème la ennemi la daf fi bëgg a indi problème takkal ko comme li ñoo dund rek sonal ko ah. fat ko bloqué ko ils l'ont fait depuis 1960 bien avant esclavage ba wàcc fii mais en tout cas suñu jëlee exemple sur les les colonies anglaises ñoom tey ji euh, émancipé nañu développé nañu parce que les anglais dindi nañu seen euh, conc ci seen euh, ndodd léegi pourquoi tey jii la colonie française bëgg perdurer fii ci Afrique de l'Ouest non non non ci kii la ci gènes yi la ak nature yi lii rek la les anglais sont plus sincères mhm. ñoom dañuy ñëw ne la lii mooy deal bi la preuve boo demee ci tubaab bi dañ la naan ban diplôme nga am mhm. boo demee ci anglais ñu ne lan nga mën américain yi ne lan nga mën parce que yori këyit mënoo jaf musiba maa bu kumba la tubaab yi nag noonu la noonu la ñuy fonctionner et loolu ñuy fonctionner moo ñu sonal. d'accord tubaab ci jàngale pour tëj. ci mhm. jàngale école am. Mhm. bi mu ñu jox ñun bokkul ak école bi mu yor xam nga moom école bi mu yor lan la. Mhm. seetlu leen les écoles françaises le nombre de jours de repos qu'ils donnent à leurs enfants. yenn doom yi ñuy njaboot yi ñuy am ñu nekk ci biir école yooyu ils se reposent plus que l'élève sénégalais. Ah parce que xam lu tax. ñoom dañuy xool lu baax si ñoom ne xale bi dafa war a noppalu warut a fii Sénégal dañuy jël xale bi sol koy kuur ba muy bëgg a dee ba mu de moo tax l'élève sénégalais bu demee en Europe mais day naaw mhm. parce que dañ ko teg coono coono yooyu nag la nit ñi war a xoolaat ci paradigme ak prisme pour se rendre compte que nous ne sommes pas encore si libres et que la CEDEAO la li ko taxoon jóg nekkatu ko tey jii buy tas tasar itam du metti kenn sama classe bi du leen sonal. <laughs> non non non c'est que xam nga les euh, boo gisee les boo gisee réew yoo xam ne. tubaab yi euh, français yi ñoo leen ñoo leen colonisé réew yooyu ñoo gën boo ko xoolee fii si Afrique réew yooyu ñoo gën son nag que pays yi nga xam ne ay anglais yi ñoo leen colonisé anglais yi bu ñu fi génnee boobu lañ si pare daanaka ils s'occupent plus d'autre chose mm. te boo gisee encore une fois xoolal le Nigéria ay Ghana ay Nigéria ay ah, Sierra Leone et cetera mais ñooñu raw parce que ces gens là tubaab les anglais là bu ñu génnee rek génn nañ si quoi alors que les pays colonisés par la France toujours la France day continuer di bëgg a am droit de regard di tànn kan moo war a kan moo warul fàllu est-ce que kii baax na si réew mi nañ ko fi dindi en tout cas bu ñu xamee chaque fois bu ñu sentir que le ki fa nekk le dirigeant n'est plus euh, ne fait plus leur affaire maanaam toppatoowul seen intérêt ils font tout pour l'enlever c'est que xam na loolu te loolu les les anglais seen yoon nekku si les anglais toog nañ fi yaay jaam def lu ko neex fii Gambie. lijjantu mos mosuñ ko lijjanti. CEDEAO moo ci doon. CEDEAO moo moo voilà <laughs> moo si def ay kéem mais sinon les anglais bon c'était pas le problème. mi ngi noonu ñu continuer nuyu euh, suñu euh, ami.